opéra opération bi def naa ni euh, comme ni ngeen ko xamee maanaam lu ñëpp xam la at mu jot euh, ay jamono ci ginnaaw dañ naan am jafe-jafe ci loolu mais at mu jot dafay teg benn benn benn ay jumtukaay day teg en tout cas benn benn taxawaay boo xamante ni day fexe ba nit ñi mën a julli ci jàmm te du am benn jafe-jafe ren i defaat nañ ko euh, yokkaat nañ ko sax bu baax a baax a baax ba nga xamante ni bëgg nañu daal incha allah rabi bu ñu jullee suba nit ñi bu ñu yeewoo dinañ mën a julli ci jàmm. bu ñu xëyee également mardi dinañ mën def seen liggéey tranquillement te duñu am benn problème ci wàllu mbalit incha allah rabi. dispositif bi nag mën naa ni lu yaatu la ndax ci réew mi yëpp la waaye su ñu jëlee région de Dakar am na taxawaay waaye fii ñu nekk di Tëngéej rek mën nañ wax ni mobiliser nañ daanaka lu lu tolloog juróom fukki ñaari téeméeri nit ak juróom fukk wala ñetti téeméeri nit loolu nag dañ leen a jëmle ci marché yi jëmle la ci fi nga xamante ni fi la ñuy fi ñuy jullee ak lépp fépp boo xamante rek ay nit dinañ fa nekk ci daral yi pour mën a waxtaan ak nit ñi pour mën a jël mbalit mi ndax bu ngeen fàttalikoo Sénégal aussi réew la boo xamante ni réew jullit la te euh, réalité boobu dafa nekk loo xam am solo la UCG nag euh, année mu jot bu def innovation ren aussi innovaat na yeneen pour renforcer en tout cas dispositif boobu xam moom la ñuy teg nga xamante ni lépp xamante ni wàllu mbalit la wàllu propreté la nit ñi mën a dem vraiment ci ci julli gi ci jàmm. sensibilisation comme ni ngeen ko xamee am nañu euh, ni ñu amee service technique am nañ service boo xamante ni mën naa ni c'est un département. ñoom dañuy wa dañuy bu ñu bu ñu amee soxla ñoom la ñuy yebal ci nit ñi ñu waxtaan a ñoom ñooñu day dem nañ ci daral yi dem nañ ci marché yi dem nañ ci boutique yi waxtaan nañoo ak nit ñi pour wax leen la a ah, UCG kat la mu doon def dina ko defaat mooy dina indi ay oto dina indi ay jumtukaay dina indi fu ñu teg ay mbalit li ñu bëgg mooy nit ñi bu altinee suba incha allah bi ñu julli ci jàmm bu talaataa nit ñi mën a liggéey ci jàmm te duñu am benn jafe-jafe ci wàllu mbalit bëgg